からロックロ Whoa! taking life in his soul. What's that? What does that mean? That means I'm not soul. So much again. Much again. Again, your man go. to be gënaaru woote. ay waxal waay. soppi tegu ku yoon. wala beneen yow. am ci bëri bu

vingt mille francs jëlal yow yaa ko moom mais ngel la boo leen demee incha allah ca bureau de vote ba xàmmee leen bu baax bii bii mooy yeewi askan wi bii mooy yeewi askan wi ci teew fii defe fay bëgg cere suñu cordinateur bi fii. ñu ngi lay fàttali ni novembre 2018 lañ fi gëjoon ci suñu tournée bi ñu doon def fii Kaffrine. diggante boobu léegi nag lu bari jot naa xew ci réew mi. mbokk nganda xam ngeen ñi ñu seqal mbir mi. dañuy ay yàqkat ay randalkat ay warkat ak ay wóorkat gis ngeen loolu ñoom gëm nañ ni xam nañ ni dëkku taax yi nekk fële li ñuy wax les capitales régionales li ñuy wax les grands pôles urbains ñoom xam nañ ni foofu mënatuñ fa am dara. moo tax seen i pexe yëpp jàpp nañ ni ci zone rurale yi mooy ñëw ci kaw gi yaakaar ni xaalis bi ñu sàcc ci alalu réew mi impôt eu. ngeen di fay tous les jours impôt boobu dama bëgg ngeen comprendre li ñu wax gis ngeen euh, gis ngeen politique ma rek wax ñu du dan waaye dama bëgg ñu comprendre ci di ndaw politique bu ñëw ngànd fii taxaw ci digg penc bi wala dugg ci kër yi di jukki di joxe bu laaj bëccëg bu laaj guddi xamal ni ab sàcc la bëgg askan wi ñu dëppoo ci benn yoon doo dem benn réewu Europe wala Amérique wala Japon ba gis homme politique buy dugg ci kër yi di joxe xaalis. ñuy xaar ci homme mooy mu gis-gis am programme bu leer nañ ay loxoom set wécc ba pare mu jiital bëgg réew mi ci bëgg boppam jógee ci homme politique nga jóg waaye homme politique bu manqué loolu bis boo ko joxee réew mi ay mbokkam ak ay jegeñaalam lay njëkk a jël teg leen ku ne jox la foo amee ay milliards bu def jël tubaab bi dagg réew mi jox leen waa réew mi continuer di souffrir fii wala ñu nekk gan seen biir réew moo tax bu ñu bu ñu juum cinq mille francs wala dix mille francs wala sax cent mille francs dara mënoo ko am yéen ndaw ñi mënoo am liggéey moo tax nag Macky Sall ak ñi mu àndal waaye jooju ñuy tudd léegi man dama ko tudd ndax du sama naaw la ci politique ñooñu ñoom dañoo amul orma ak wér ci nit parce nit boo ko wégee nit boo ko wégee doo ko xool jàpp ni war nga koo mën a jënd comme kuy jënd xarum dabas mais nit boo ormal bi mooy fexeel ba alalu réew mi des ci réew waaye ñu fexe ba ko sàcc dugal ko ci ay à l'étranger ñu séddale ko ci séddale bu jaadu ba ku nekk jot ci wàllam loolu la ñu dimbale moo mu àndal dinañ xam ni waa kaw gee leen gën a yeewu fuuf buñ xam ngeen fan ba ñu ne des nañ le 31 ngir yàlla génn leen massivement ngeen voté waaye xam ngeen bëgg réew mi ak bëgg jëlee fi firaaw na moo tax bëgg fee jëlee firaaw na moo tax ñun ñu am lu ñu nangu bàyyi waaw na wàllu bu am Ablaye Wade am lu ñu nangu bàyyi ñu dajale loolu yëpp pour boole suñu doole pour jëlee fi Macky Sall définitivement. moo tax ngeen mën a am moo tax ngeen mën a am Cissé ci liste bi am xam ne ñun Yewwi ñoo ko ci liste bi waaye bu ngeen demee le 31 bu ngeen jumloo de. du wallu bu leen ko laal du tee wallu bu ko kenn jël dugal ko ci urne bi yeewi bii moom ñuy dugal ci urne bu ko sànni ci urne bi votel nga doomu Nganda votel nga yeewi askan bi bu tee bi nag yéen ñëpp xam ko mooy bi leer bi rek waaye biñ ko weexalee ba noppi dañ ci boole dara xam ngeen couleur verte mooy couleur gàncax mooy couleur espoir mooy couleur naataange moom mooy bulletin Yewwi Askan Wi mu am ko gën yombal nag ndax Macky sàll bi mu tappalee ànd ceeg Antoine Diome ak conseil constitutionnel ba ne suñu liste titulaire ñun génne na ko conseil constitutionnel dellu siwaat di ceefaar mi lu ne daj na ko ci conseil constitutionnel day waat ne ñun man mii Ousmane Sonko sama photo liñ ko dugal ci fii xam nga ragal nit ba ragal photo maa a ne ne ñetteel bi amul photo loolu moom duggee defal aw askan lu mu boppam gis ngeen ni ñuy roy ñi ñu ñëwee ba tax suñuy doom di jël gaal naan dañu dem foofu ñoom ñi ci ëpp ci ñoom sax gëmuñu yàlla waaye xam nga lu ñu gëm ñoom mooy ñoom ñoo war a mënal seen bopp ñoo war a defal seen bopp yaakaaruñu keneen ku dul seen bopp bis ñu ko gëmee ñun Sénégal te gëm naan yéen léegi gëm ngeen ko ndaw xam ngeen kon lañu def li ñu war ñun yàlla mottal ñu xam nga li ñu war lan la def dafa am occasion boo xam ne du ma ne amuloon depuis indépendance rek ndax Mamadou Dia jaar na fi eh, Cheikh Anta jaar na fi ñeneen ak jaar nañ fi ci ay mag ñu baax waroon mën a defar réew mi waaye tey dañoo am beneen occasion te nag ñi ko bokk ñëpp nag ñi ko bokk ñëpp boo leen jëlee kenn ku nekk xam ne ni kii rek moom rek doyoon na pour ñu mën war koo mën a wóolu mu defar réew waaye ñoom ñëpp ànd kenn ku dara ñu ne dañuy bokk kon loolu am nañ ko ren am nañ ko tey ci Sénégal waaye ñooñu mënaluñu seen bopp seen xalaat lu mu set set set seen yére nu mu leer leer leer ak seen patriotisme fu mu munti toll bu ngeen jot leen joxul seen carte yii mënuñu egg fa ñu jëlee décision yi ñu jël décision yu baax yi ñu jëlaat suñu réew defar ko kon loolu mooy enjeu ci may daaneel bu ñu joxee majorité Yewwi Askan Wi ak Wallu Macky Sall dootu fi tudd troisième mandat te troisième mandat dañu ko fi tere troisième mandat déedéet du troisième dañ ko fi tere li ñu war a mën a musal ndax su ko bëggee forcer déedéet dina tuuru Sénégal ñaanuñu ko yàlla boo ma ci bakkan dina rob Sénégal ñaanuñu ko yàlla am na lu ñu mën fenkal loolu yëpp mooy le 31 juillet génne leen seen carte yi suñu yaay yi suñu papa yi waaye yéen ndaw ñi surtout faveur dem ci bureau de vote yi vote leen waaye toog leen ngeen sécurité vote yi 18h30 ñu ko ñu wàññi bétail Macky Sall amal ñu réew mi.